jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax tey fii ñoo ngi fii jàmm gën ko ñu njaago seet ki nga xamante ne mooy Laurent mbokk yi Laurent dafa woon bëri démb mais ñu jékki-jékki dëkk bu wàcc ñu ne làmb dootul am moo tax tey nag ñu jaar fi seet ko bëgg a waxtaan ak moom ci préparation bi wàccaay li ak bi mu yëgee information bi naka la ko def ak naka la dundee Laurent nuyu naa la. yee bëgg naa leen. mais dafa ndànk émission français la wala. mais olof nga ma niiwee. <laughs> Ah, waaw dooleel après ñu continuer dem français. Ah, non bien. bilaa yow. maame voici maame. elle voici deux elle voici un. pour aussi de petit banon. ri etu ni c'est bien c'est tel que ceci école nga ko jàngee. Ah, doo garant. yow laay nuyu rek naas que ceci loolu mooy sawa da nga def livre Sidi Eyoma ah. jàngee nga ci non boobu jàngaa mas maa sut niveau boobu verbe complément bi conjugaison bi conjugaison la trois personne du singulier c'est la personne qui parle il ou elle avec sans ak bii tamit de ak la personne de cardinaux les l'ouest et le sud <laughs> waaw. <laughs> yow école ba yàggoo fa <laughs> mbëri daal ñoom nii rek lañ ko bëgg a jàppee ak fay naa la bilaay sant bu wér. yee di nuyu Samba. ayke boogaa naa nooree zar xangalu ma la njool mi di waa di nuyu ñëpp gaan bëgg naa leen yéen ñëpp. mais fii fi naaj ah man nag naaj barki yàlla ni laa ko fekkee ko waa hmm. suñuy maamaati maam la. yee bilaa ñoom papa jaasi yoo colonie yaas yoo jamono yooyu noonu la. <laughs> mais li nga takk nii la. lan takk nii. lii nii. Ah. la illa lii naaj béyanu naat bu lii sampoon. moo nekk nii béyanu naat bi la. bi lii sampoon. waaw démb sama dernière butéel xam nga lan la ronga ju ginaar. lanu. rongañu ginaar. dernier butéel bi ma sotteekoo ah, wax ni ana dernier butéel bi. loolu man deg maa ko indi làmb ginaar maa koy sotteeku man. di yóbbu béjjënu naat. loolu man deg maa ko am. de làmb damaa jaral de. bilaay yow abuku papa. <laughs> mais mais mais naka nga doon waajee làmb ji naka nga doon waajee làmb ji. lamb gi billaay wallaay ma ko doo waaj comme nu Balla Gaye di waajee ak Modou Lo. mais dama ñëw léegi ñu nga ne ma. waaw euh, ni may waajee combat noonu la Balla di waajee noonu la Modou Lo di waajee. noonu la demee da nekk mbër bu ndaw. waaw yow mbër bu ndaw daa am Modou Lo mbër bu ndaw ak bu mag amul de. su demee CNG du fay cent mille am licence lu may fay lay fay. yee comme ñoo yem si lamb gi. fekkoon su ma demee CNG ñoom lu ñuy fay lu ko gën a tuuti laay fay. coo jubul quoi sax su ma nangu ñoo ma waa moo lool mais ñoo yem si arène bi kenn ëppale wu ma fa dara fu ñu sàjjee ma sàjji te fu ñu invité mbër yu mag yi damay dem ñoo yem ñun ñëpp waaw. mais naka nga doon waajee sa làmb. waay waaj waaj bi laay di si sonn. waa condescend di si coona mhm. yee naaj may ma xaalis bëri. bilaay walaay. làmb dama si def ay millions. ban làmb nga def ay millions. bii bu démb bi yàqu. ay million laa si def. kañ nga yëg na làmb ji yàqu na. démb ay 10 heures si suba. bilaay. kon yaa ngi doon yaa ngi doon waaj pour dem. ay million laa si def ba ma woowee séeréer bi lan la ma njokk njal ay milliards. bilaay wallaay ma si def xaalis bu bëri mu niil. yee moo tax xonet bi ma xonet bëgguma sax bërëg booy nañ ma jox Modou Lo ma dóor ko dóor yu métti daan ko damaa xonet de damaa mer. non non yow yow yow yow yow yaa ngi jóge yaa ngi jël plateau. génnagoo ci plateau da nga war a jàkkaarloo plateau nga laaj Modou Lo te nga bañ a dugal sa bopp. man dama dugg si làmb ngir bëreeg mbër yu mag yi du booy. booy nii sax xoola cooli la nii rek. mais ñu bari dañuy dégg Laurent mais est-ce que na. maa ngi dama mbapat ba tas. Fuuta ak fépp naa fa cees yee Thiès waa yee ngi fii nii soo leen laajee ñu wax la ko dama dem fu ne bëre. doo dégg Etienne doomu Ndiago bi 500 Christophe la ñaamilikoo maa ngi. mais bi nga yëgee ne ji yàqu na. Hmm. naka la la def. Ah, naa es métti na ma. mais après dama xam ne tamit xam nga lu gën la rek mënoon naa dem bëre bay ñëw ñu jege si man dee. Hmm. barki yàlla mais tamit xam nga lépp yàlla la dañ ma ko wax ma ne waa coo jubul loolu dafa escate ordinair lool du dara. extraordinaire. escate ordinaire yow xanaa jàngoo <laughs> lan mooy ki jàngul waa jàngul laa jox kii jàngul. waaw jàngul lay gi li ngay wax loolu ban làng la parce que man. naa la wax leen de dégg ma non dag may dégg de su ma waxoon ngéwal yëngu ñu ràcc maasaale teg paay yaa ngi kay ko di ñëw nga naan ecce na ngële bilaay yow abuku papa kon de abuku ma njako di ko mais lii lan la lii ngay wax nii lan la njaago la wala balañ sa la lii mënaguma ko tekki damay jël sama temps. da nga koy cons. làkk yëpp laa dégg. bi laa yow. aya mais buñ buñ buñ bi loolu jàllee. Ah. bi loolu jàllee ñu dégg ne Balla Gaye ngi waaj bëre moo ki nga xam te mooy Bombardier seen seen combat yàqu ndax ngeen koy dundee ndax ngeen koy jàngatee. maanaam ñoom la yow maanaam man waruma ñàkk a bëre. Balla Gaye di bëre. fekke yoonu logique quoi ñu àtte normal man bañ ne tey laay bëre la yaku Balla Gaye warul bërewaat sama kaw man suñ ma newoon léegi-léegi lënd bi tey xoolal làmb la ma dem bëre ji ko mais Balla Gaye waruma njëkk a bëre nañ waxante dëgg Balla lu mu fay am licence laa fay de billaay walaay noonu laay doxee Balla Gaye ëppalewu ma dara si làmb soxlawu ma ko nag tëkkuwu ko man Modou Lo laa soxla mais maanaam Balla dawul sama yaram luñ fay ñoom ay bombardier am licence loolu laa fay comme waruñu bëre may toog. te ma leen njëkk a am dat lan moo tax nga jël sa bët bi teg ci Modou Lo. damay gis ne day kalaate ay ponkal jàmbaar te man damaa bëgg jàmbaar man lu muy bëre teeyul sama xel dawul sama yaram ma xam ne su ma ko jàppee jooy ko benn jooy moo tax waa. sa combat sa combat Thiatou di ko booy dañuy xaar Thiatou Rebeuss du dugaat sama gaale instant bii nii. plateau moo si daw fase mais yeneen booy ku bëgg a man foog nga lëmbal. meen. da ngay lëmbal rek bëreeg Laurent Lorz El Dieng bu dof bi. waaw xanaa nga beñ toj sa mbaari mu naa. man loo xam ne daal na ma. mais naka ngay wax ñi nga xamante ne ñoo la doon jàppale ci wàccaay làmb jeeg. waaw làmb gi maanaam naan tey dañ see sonn ñoom seex borom españ da see daj coono ñoom Laay Suarez yee asu yaay faal xaalis bëri la ma may sama yaay faatu Gueye ak waa jàmm gën yee gars yi dañ see sonn ko waa bilaay yow sama nijaay maas ñëpp a si sonn xam nga di nuyu ñëpp yee ah bilaay ñëpp di leen nuyu ah waa ay alsan laam barki yàlla nante yu bëri dañ see sonn ay condescend ñëpp barki yàlla yee. lan lañ ban ban Laurent lañ mën a xaar. waaye Laurent. bii ñëw mooy ñëw rek de man mii ngay gis ni maa ñëw rek. mais ñu ci bëri na da ngaa tuuti taay bi. noonu la demee bëri na ñu fi bëre ñoo xamante ne ba ñuy bëre premier combat maa leen ëpp doole fuuf. bilaay walaay. kon Laurent bi may gis nii am na doole. xoolal samay première émission ak léegi rek te des na lu bëri. laay ku bëgg a daan Modou Lo da ngay des na lu bëree bëree bëri. e billaay waaw di waaw gaan xam sama nante yi di sant ñëpp billaay walaay e eh, ñoom faa ñoom mama e mama day sonn si man ay faa billaay walaay dañuy sonn si man ñoom binta nante yëpp dañuy sonn si man barke yàlla ay ga tuus kontaan naa ci yow leen lu bëri doole yéen ñëpp billaay yow tuus